bon attaque yi ñuy def moom contre Ousmane Sonko je pense que du lu bees parce que nag ni ko olof di waxee bëgg du mës a bañ te bañ du mës a bëgg te mm-hmm. tey jii mm-hmm. ñi nga xamante ne ñooy attaque Ousmane Sonko je pense que ñu ngi commencer mm-hmm. ci bi Bassirou Diomaye fay gañee rek ñu ngi doon wax lan moo tax Ousmane Sonko di ànd ak moom pale ah, fa la commencé woon ñu pare ci loolu dem ci ak accoutrement Bassirou jomaay fay doon wax est-ce que am na posture Euh, président yu yëpp wax nañ ko fi di nekk une stigmatisation boo xamante ne nemmeeku woon nañ ko mais comme je le dis rek de 2021 à maintenant Ousmane Sonko amul dara loo xamante ne dégg ko mm-hmm. que ça soit ci presse bi que ça soit ci homme politique yi donc nekk loo xamante ne lu bees lay doon mm-hmm. donc euh, tir groupé lay doon tir groupé <laughs> mais euh, je me dis que tamit Sénégal dafa neex rek moo tax ñenn ñi ubbi seen làmmiñ wala ñenn ñi àbb micro di wax mm-hmm. Bachir cest à bu fekkonte ni régime bii nii toog fii di la Pastef hmm. dafa amoon benn opposition boo xamante ni bu responsable la hmm. mën nañu wax mën nañ leen permettre ñu ubbi ko hmm. ñuy wax on peut permettre mais régime boo xamante ni yow toog nga fi douze ans durant ñu lay joxoñ baaraamu tuuma ci ay lan faat bakkan ñu lay joxoñ baaraamu tuuma ci ay lan jël Sénégal yi tëj ci kaso bi ñu lay joxoñ baaraamu tuuma ci lan ngàcc suñu deret muuti suñu deret yow nga pett régime boobu ne da ngay opposé wu waaye tu ne t'opposes pas sax dignement parce que tu ne t'affiches mm-hmm. yaa ngi nekk di yónni ay nit derrière les claviers wala yow yaa ngi nekk di financer nit ñi ci suuf pour ñuy mm-hmm. opposé wu alors que l'on yow yaa nekk derrière mm-hmm. à partir yu Maroc wala keneen ki nga xamante ne en tout na di peu dina def déclaration am benn opposition bu responsable boo xamante ne dina ko amal moom Amadou Ba. Mhm. en tout cas je me dis euh, tey jii. bu mhm. yëf yi doxoon normal sax. Mhm. jamono jii dina leen fekk ci leneen wala dinañu tal leneen lu dul di bind ay communiqué wala di yónni ay nit en tout cas. pour ñuy xas ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko parce que man dama fa gisagul du fi ba ñu war koo mën a may. gisagul fi ñor d'accord ñu continuer alors Babacar euh, président de la République Diomaye cent premiers jours à la tête de l'État du Sénégal tey boo doon xool bilan bi taxawaay bi gis nañ que am na ay pàcc yu am solo yu tegogun mais tamit dara lu dëgër dëgër ñu mën a firndeel tamit desagun na buñ ko comparé ak promesse yi tey boo doon analyser bilan bi ça donne man damay rangé wu ci lu ku mel ni Salm li mu wax. Mhm. muy bilan moom mënuñoo fal nit ngir juróomi at. Mhm. mu def ñetti weer. Mhm. yu toftal tuuti. ndax bu ñu ne cent jours c' est trois mois. dix jours. c' est trois mois dix jours. les est quatre vingt dix jours donc nit mënul mënul ko fal ngir juróomi at mu def ñetti weer yu toftal fukki fan. nga ne da def bilan. waaye ñetti weer yu toftal fukki fan yooyu de mën nga ci amee lenn. muy teg sa gët xool ndax ñi Mhm. bi nga leen di fal lañ la waxoon ba tax nga am yaakaar ci ñoom. Mhm. ndax ñu ngi ci yoon woo xam ne mën ngaa jàpp ne yaakaar ga ma amoon mën naa wéy di ko am ni ñii kat li liñ ma mhm. waxoon ba léegi dinañu ko def wala déet. pour man jamono bi foofu la ñu toll ndax xool ñii ñu ngi ci yoon wala nekkuñu ci yoon mais bilan moom mënaguñu ko def. ndax ñu ngi ci yoon mën naa am yaakaar ne bëri na lu senegal yi doon joytu. mën nañu am yaakaar ne ci ñii dina fi jógee euh, ndax bi ñu fi toogee léegi cent jours nga wax. ñu def ko Euh, mu bëri na secteur yoo xamante ni Sénégal yi amoon nañ ci njoytu yu bëri. Mm-hmm. ñu nga cay teg ay jéego. Mm-hmm. biñ bokk na ci acte njëkk a bi ñu ñëwee. Mm-hmm. coowal suuf yàgg na Sénégal. ki ñu fi wuutu moom moo noonu li muy jot ci ay rapport yu ci bëri. bloc d'information yu ci bari ci mbirum suuf la jëm. bañ ñëwee gis nga taxaw bi nga xam ne moom lañ ci def mhm. ak le littoral dem ba mbuurkaat caxat-caxatee bi doon am ci suuf bi mhm. gis nga le président mbuurkaat moom moo déplacé wu demal boppam mhm. gis nga fii place Anse Bernard barki Demba Ndiaye le premier ministre moo fa demal boppam ak kàddu yi mu fii ñu ko dégg kon nga mën a jàpp ne côté boobu coow li ci doon am ak jafe-jafe ci Sénégal yi doon dund mën nañu am yaakaar ne ñii dinañu ci indi ay saafara beneen bi muy lu jëm ci wàllu dund Sénégal dañoo yàgg sonn ci dund gu seer yàgg di ko jooy. Mhm. gis na jéego yi nga xam ne teg nañu ko ci. mën ngaa mhm. jàpp ne tamit ñii xëy na buñ fi ñu jëm dinañu teg yeneen jéego xam ne mu gën a woyof. Mhm. ñu jàpp ne kon côté boobu tamit ak saafara mën naa am ci jafe-jafe yi nga xam ne Sénégal ñu ngi ko doon dund. beneen tamit muy secteur nga xam ne mën naa wax ne nag ci nguuru mag Sall sax foofu la Sénégal yi gën a gën a gën a sonnee. ndax bu fekkoon ne sax dund gi cher na. mais ñu may leen jàmm. ñu man am afiya am jàmm ci seen réew di génn di faraatu lu ñuy amee dund googu lu mu cher cher ñu fax am lu ñu sutuloo sax ñu ne waaw waaye jàmm googu moo jafe woon ci réew mi lu taxoon jàmm googu jafe woon ci réew mi mooy li may def hmm. dëgg lu du dëgg hmm. neex na la neexul la hmm. da ciy ànd wala da ci daan tekk waaye boo ci naree wax ma jàppale yóbbu ndongu seen lu mel ni justice mu nekkoon euh, côté boo xam ne secteur boo xam ne Sénégal yi dañ cee sonnoon trop trop trop trop jàpp gi mel ni tuleegment la ci réew mi hmm. loolu tamit bi ñëwee gis nañ li nga xam ne moom la ci le nouveau régime laa def euh, maa ngi bëgg wax lu mel ni assise de la justice yi nga xam ne wootoo nañ fee si jam ñaajo ak proposition yi ñu ci def hmm. su ma juumul tey jii le président de la république sax normalement euh, war a jot li nga xam ne mooy conclusion yi hmm. li ñu jot tukkee ci dialogue bu ni nga jàpp tamit côté justice ak li ci Sénégal yi yëpp xëy na dinañ ci ñëwaat sax gën ci yaatal ak lu ni kaw Fulbert Sambou ak Ismaïla Madior hmm. bu nu mel Sénégal yi ñu demoon ba amatuñu ci yaakaar hmm. da ngay gis sax nit koo xam dañ koy tooñ mais du bëgg du dem justice hmm. surtout bu dee xawee naa laale tuuti ak politique foofu kon nga mën a gis ne nañu am yaakaar ne euh, changement dina fa am te déjà justice moom bu amee rek tolloo am ci askan wi ci citoyens yi jàmm am xëy mën nañu am yaakaar ne yeneen yi xëy na boo defee jéego yu tuuti rek. Hmm. dina jëm kanam. Hmm. tamit côté transparence ndax gis nañu ñi ñu fi daan jiite. Hmm. luubal goo xam ne am na ci. gis nañ bi ñu publier rapport yi fi am ci juróomi at yu mujj. li ci Sénégal tëggat. ñu jàpp ne euh, loolu tamit du ñu yem ci publier rapport yi rek. dinañu dem ba mu jeex justice la nga xam ne moom na ci def dina ko def te ministre euh, garde des ña ne récemment mu génnee kàddu yi mu ciigati Sénégal yi mën a am yaakaar ne kon. dinañu dem jusqu'au bout ndax moom jàpp na ne suite logique bi rek mooy bu ñu publier rapport yi. ñu saisir Mm. juge d'instruction yi jox dossier nag ñoom ñooy def liggéey bi nga xam ne moo ci war. Mm. lu ci am dëgg-dëgg ca biir ñoom ñoo ci wax askanu Sénégal li nga xam ne moo ci am beneen bi muy euh, lu demee ni tir groupé yi nga xam ne ñu ngi koy wax peut-être foofu laa bëgg sax parce que gis nañ que ni bu ma mhm. euh, régime bi fi nekkoon pendant douze ans lañ nemmeeku mooy jafe-jafe jëm ci wàllu violence moo waral tey bi ñu bi bi bi ñu leen di folli mhm. askan wi dañoo dañoo fal lu bees ngir indi ay changement ci dëkkinu askan wi ak ak seen yi def ñu respecté ko mhm. yi nga xam ne def nañ ko ko mu nekk loo xam ne également bari na ay tirs groupés yu am ci biir tout ça. tey est yaa ngi sentir état bu taxaw bu am détermination ngir wéyale li nga xam ne digoon na ko askan wi jàpp nga ni mi ngi lompoñ wala dara. non man am naa yaakaar ne. parce que ba démb rek barki démb je pense le premier hmm. ministre bi muy dalee ñi coow li am Colobane. Hmm. Euh, le représentant de commerçants ak les riverains. Hmm. wax na ko. nee na sa gouvernement la du subir benn chantage. ñoom ndax dinañu faluwaat maanaam beneen mandat nekkuñ ci calcul yooyu. te ma jàpp ne loolu moo war a nekk yoon nag. Mhm. gis nga bu nekkee ci calcul beneen mandat. Mhm. ci la seen i sens am beneen mandat di gën a effrité wu bu ñu nekkee ci logique gu. Mhm. liggéey ngir askan wi leen fal. parce que askan wi la fal bu ngi liggéey ñuy gis résultat. beneen mandat ñoom ñoo koy calculer mais doo calculer. dañu yegg ci nga am beneen mandat rek nga am ci. ma yaakaar ne euh, ñu ngi ci yoon woo xam ne daal bu fekkee juguñu ci. li ñuy wax ñu ñu ñu dox ci dem ci jusqu'au bout. bu ñu nekk ci logique calculer beneen mandat parce que ñoom gis nga ce régime là pour mu réussir pour man lu yomb la. xamuta mhm. ñi leen fi jiitu mhm. daanaka dañoo génne faay yi nga xam ne ab gouvernement war na koo mën a def. ba mhm. lajj. Mhm. yooyu lañuy fexe moytu rek. d'accord bu ñu ko moytoo rek mu nekk une pour ñoom ñu dem. waaw c'est c'est très simple. c'est ça jërëjëf alors Salma foofu laay rebondir ak yow. Mhm. dégg nga tey Ousmane Sonko premier ministre nee na ay mandats. mais dañ gis que ni taarixu politique bu Sénégal ku mus a toog li ngay njëkk a calculer mooy le prochain mandat. yan pion laay teg ba bu ñëwee bu yomb ci man. gis nañ ko li passé déggante Abdou Diouf ba ba Macky Sall. te est-ce que mën nga mën nañu wax que ni loolu erreur la nga toog. soxla nga lu minimum deux mandats ngir liggéey lu am solo mhm. nga taxaw ko ne lijjanti woo mandat lu neex ma Samba lu neex ma Demba li ñu war a def rek la ñuy def buñu àggee mhm. kenn ku yaaxoo sa bilan nga nga est-ce que loolu maam xel nangu na ko. waaw man su waxoon leneen si la may bett wala su waxoon leneen dinaa ne. Mhm. kii jaar jaaram ak jaar jaaru Macky Sall jàngulu ko dara. parce que nag tey jii comme li Babacar wax dafa am solo. amaana gis nga nit boo nekkee ci sa place di doxal ni mu waree di liggéey ni mu waree. bu sa waxtu dem jotee nit ñi ñoo naan la toogal. parce que mën a mën a a mën a a amul solo de ña la fa fal teg la fa bëgg la soxla sa soxla la ci poste de responsabilité bi nga xamante ne moom lañ moom lañ la moom lañ la teg. Mhm. soxla fa soxla la fa xam na laa ko mën a waxee en tout sentir la fa. ba du ñu d'accord wala du ñu bëgg tey jii nga dem loolu moo ëpp solo tey jii. Mhm. comme olof Ndiaye ni mu koy waxee mën a mën a mën a amul solo tey jii mhm. bu liggéeyee. bilan wa mooy def. campagne am. Mhm. bilan am mooy tax tey jii di tax sénégalais di ko fi téye mooy ci moom. Mhm. Ousmane Sonko euh, euh, Diomaye mooy Sonko bi ñuy jaayoon dinañ xam ne dëgg la. Mhm. te tey jii comme ñoom li ñu wax horizon deux mille cinquante am. <laughs> bari na de loolu la en tout cas décrire ci seen projet. absolument loolu la ñu ci seen projet boobu li leen fiy teg. ñoom ñoo koy liggéey te nekku ci ay calcul politique lañ ko nar tegee mais ci ay bilan bilan que ça soit matériel immatériel.

naan ñu xool nu indiwaatee règlement premier ministre assemblée nationale si tel n'est pas le mu mm-hmm. indi benn jury boo xam ni mooy encadré li mu wax déclaration de politique mm-hmm. tey posture Ousmane Sonko ci assemblée nationale Guy Marius Sagna ne ko bul dem Abass Fall ni ko bul dem. Mm-hmm. Ayib Daffé ni ko bul dem nan nga gisee taxawaayam tey est jàpp nga daa war a dem def déclaration par A ou ndax c'est la moo ko wax quand mais pas de délai. wala jàpp tënk ko ci délai. waaw ko ci délai daf ko ne euh, di nga dem defe ji sa déclaration de politique générale mhm. mais ku la wax di nga dem. Mhm. te tënku la ci délai aussi bu la neexee mën nga ne dama koy def ci assemblée bi. Mhm. wala damay xaar ba ñu dissoudre assemblée bii di ñëw. te man damaa jàpp ni urgence la ci fii ñu toll ci Sénégal ngir ñu dissoudre assemblée bi nga xamante ne moom la ñu am man jàpp ma ni urgence bi mooy Ousmane Sonko war a dem jàkkaarloog ay kuramaki ay député yoo maanaam bu Ousmane Sonko waxee ba pare ñoom lan la ñu am pour tontuwaat Ousmane Sonko. Ah, mais quelque part Alpha c'est des élus c'est des loolu nag mooy problème bi est-ce que du peuple est-ce bi tey day refléter tey li askan bi bëggoon. Hmm. loolu mooy problématique bi parce que tey jii bu fekkente ni ñoom ay ndawal askan wi lañ. Hmm. est-ce que ña nga fay taxaw wala taxawaay bi nga xamante ne tey moom la askan bi soxla woon. Hmm. ba yóbbu leen ca pencum ndaw réew mi. te nag problème mu liste bi ñu doon wax jamonoy élection législative bi Bachir. parce que tey du liste bi nga xamante ni moom la euh, moom la ñu tegoon en premier lieu. Mhm. du loolu list boobu moo dem ci élection yi ba ñii nga xamante ne tey falu député falu ah. ay liste titulaire rek. Mhm. gisoon nañ problématique boobu nga xamante ne amoon na fi. donc man dama jàpp ni urgence la ngir ñu dissoudre. assemblée nationale bi nga xamante ni moom la ñu nekk man je me dis que woon sax ñuy xaar ba septembre parce que nag juillet lañ leen faloon 31 juillet bu jotee mënoon nañ leen dissoudre ci na mu gën a gaawee parce que comme li nga wax léegi c'est les élus du peuple waaye est-ce que am nañ taxawaay bi nga xamante ni man Salma Ibrahima Fall par exemple euh, ma nekkoon benn électeur voté woon naa mhm. mais tey ki ma voté woon mu dem assemblée nationale est-ce que fay becc sama ay njàmbat est ma fay teewal yooyu dafa nekk ay problèmes yoo xamante ni tey mën mhm. nañ ko évoquer mais ce qui est euh, pour la déclaration du politique générale de politique générale comme ni ñu ko waxee euh, constitution moo ko wax waaye tënku ko amalu ko àpp. amul délai amul délai. Mhm. au-delà de ça aussi y a le règlement intérieur de l'Assemblée nationale comme ni ñu ko waxee. te tey je pense que ñoom dañoo attaqué Ousmane Sonko maanaam tam ko dëmm te délai bi jotagul. Eh. Ousmane Sonko ñëw taxaw ne leen. maanaam ñoom dañ koo tam ne ko yow ab jullit nga waa respecté woo chaatul islam Ousmane Sonko ne leen man de moo ne jàpp naa ba pare maa ngi ni taxaw waaye euh, kaaba gi non non kii bi. penku bi penku bi laay laay lijjanti. fii ak leeru ma nag du ma taxaw julli. mooy maanaam bu leen yóbbuwul li ma régir premier ministre assemblée nationale. du ma ñëw waaw du ma ñëw. waaw maanaam yéen tegu leen ci yoon ba pare bu ngeen nekkee ci yoon bi man dinaa leen fekk si. def sama déclaration de politique générale waaye ci ni ko yoon tënkee. Mhm. du def comme Amadou Ba mi nga xamante ne bi mu fi nekkee war a def sa déclaration de politique générale ku ci mel ni Guy Marius Sagna entre autres députés euh, Théodore moon tey demoon nañ interpeller ko directement interpeller aussi euh, le président de l'Assemblée nationale pour lui dire que assemblée. maanaam euh, lii nga xamante ne ci la ñuy dox di règlement intérieur bi du lu baax. Mhm. parce que dañ koo falsifié. Mhm. ndax fallait que ñu dem def ko benn loi organique boo xamante ne dañ koy voté. ngir mu mhm. mën a valable mais dañoo tànkam lu woon Amadou Ba a préféré dem def sa déclaration de politique générale. ci base règlement intérieur boobu ne mais li tënkoon Amadou Ba nag tënkul Ousmane Sonko. mais mais Thierno Bocoum nee na Ousmane Sonko Thierno Bocoum opposant nee na Ousmane Sonko bu demul assemblée nationale c' est un crime institutionnel. moo wax loolu. <laughs> waaw crime institutionnel. c'est-à-dire la constitution encore une fois nee na Ousmane Sonko da ngay dem nga def ji déclaration de politique générale mhm. waaye jàppalu ko àpp mhm. jàppalu ko àpp en lay nekk crime institutionnel d'accord Thierno Bocoum un politicien boo xamante ni Bachir il avait de l' avenir politique. absolument ça c' est vrai. parce que gis nañ taxawaay bi nga xamante amoon na ko ci péncum ndaw réew mi. Mhm. ay jamono. Mhm, quand il était député. Mhm. da def ay propositions wala ay textes yoo xamante ni en tout cas du nga koy lire daal di ciy gindiku. mais man nekkul Thierno Bocoum boobu laay gis ba tey. lu tax lan lan moo. c' est pas pour moi c' pas la même personne je je pas ce qui s' est passé entre temps. qu' est ce qu' il y a il Sonko. il voudrait sa place. parce que man je ne peux comprendre un homme politique boo xamante ne dangay ngay def euh, benn euh, déclaration de presse wala conférence de presse yow sa discours yëpp yaa ngi ko tënk ci benn nit Ousmane Sonko. mais du moom kase nag. waa non man loolu laa dikk ci discours am Ousmane Sonko Ousmane Sonko dem bay woote tout l' opposition ngir ñu réunir mais Thierno Bocoum ban ban opposition lay waxal. est-ce que. <laughs> Ah, ban lay waxal pour ñu pour ñu dajaloo def benn say. ay Bougane ñu ñu ne ci opposition Bougane Amadou Ba tout ça benn say ñooñu. man Bougane ngi dami. mi xaar deuxième tour. <laughs> non Bachir je ne comprends pas. non mi pare woon. ngir photographier. Hmm. deuxième tour. Hmm. mu ne moom deuxième tour lay dem. Hmm. kenn bokkum Bougane moom lay woo. ndaw ku tardé. kenn bokkum kan lay woo Amadou Ba. am na Ba bi nga xamante ne depuis ñu ngi koy xaar fii lan la def.